mu ngi dalalaat compétition bal basket African League mu doon ab initiative Amadou Gallo Fall ngir may doomi réew mi ñu fësal seenub talent ci boobu boobule discipline li nga xam ne nag moom la ñu seetlu ci boobu boobule compétition mooy ñàkk teewaay partenaire sénégalais ci sponsor yi partenaires yi ci gën a mag nekk daanaka bitim réew la ñu jógee loolu nag nekk ab paradoxe bu ñu sukkandikoo ci Abdoulaye Thiam nekk journaliste sportif ñun dafa mel ni sport dañ ko xoromalul rax ci dolli encore sponsor yi nga gis yëpp daanaka mu ngi jógee sax Rwanda. sponsor lu muy daw day daw ci ginnaaw activité bu am attractivité maanaam lamb soo gisee mu am football mu am mu am mu am sponsor c'est parce que lamb dafa jar baal bi kenn mënula wax ne mënoo koo jaay jarul parce que mu ngi koy ñu ngi koy wane au-delà. di Sénégal. leneen loo xam ne nag ci am xamu ko mooy ñàkk soutien autorité yi. ci boobule tournoi nga xam ne ab doomu réew mi moom moo ko taxawal. ki fi indi bal mu ngi tudd Amadou Gallo Fall di doomu Sénégal. bokk si bokk si doomu sénégalais yi ñuy gën a tiitaroo ci àdduna bi c'est la trempe de Lamine Diack de du Diagne Ndiaye de kebaa mbay et autres nekkoon vice-président NBA euh, tey ji indi bal installé fii lu ñuy woowee site académie. loolu moo tax journaliste bi jàpp ni teewaayu président Bassirou Diomaye Faye ak naatangoom bu Rwanda nekk na opportunité boo xam ni waruñu ko manqué ndax mën na yóbbu compétition bi ci yeneen i anam. waaye généralement même ci wàllum basket bi rek. boo toogee di basket nga nekk duwaan tey <coughs> ngay basket nga xam ne kii kat ci parmi supporters yi nekk ci kaw ñi may seetaan am na sama président de la république muy taxaw fule di ma seetaan soo doon def benn wala ñaar di nga ko def fukk wala fukk ak ñeent. loolu lu am solo dalay lay permettre nga transcender wu. bi yoon nag mooy ñeenteel Sénégal di dalal li nga xam ne moo di basket African League loolu nag dina tax ñu mën a jaay potentiel basket africain Abdoulaye Thiam di am yaakaar ni autorité yu bees yi dinañ amal attention bi war ci bile compétition.